thank you jërë ngeen jëf dalee nag jàmm ci xew-xew réew mi ñu tàmbalee ko ak Cheikh Omar jaañ mi nga xamante ni jamono ji teg nañ ko loxo fa nga xamante ni moom mooy section de recherche moom nag def na fa sax lu toll ci juróom benn waxtu yoo xamante ni mi nekkoon ci loxoy waa dikk ñu koy laaj ci li nga xamante ni lañ koy toppee ginnaaw ba ab plainte goo xamante ni kii di Djibril War moo ko daal di teg ngir ay kàddu yoo xamante ni du ko yëkkati te tegul ci yoon moom nag tey jii dina xam fan lay mujjee ci mbir mi nga xamante ni lañ koy toppee te fa nga xamante ni moom mooy section des investigations criminelles la ñu wax ci leneen wax ci ay ndaw yoo xamante ne daal di réer nga xamante ni mooy mbuur ñu nekk ay nappkat yoo xamante ni yoone boon napp ji ba sax fi mu nekk nii daan nañu jàpp ne dañoo daal di ñoom ñi le nag benn néew lañ daal di gis ci ñooñ nga xamante ni ñoom ñoo réeroon ci géej gi ay te ñu départ woon fa nga xamante ni mooy Cap Skirring ñuy wax ne sax ginnaaw bi nga xamante ni mooy géej am fa nga xamante ni mooy mbuur am na ñeneen ñoo xamante ni réeroon nañ ca fan yee ñu génn dañ tonoon ci ñett nit yoo xamante ni ba léegi kenn xamul fa lañ féete càccu bant gi nga ni mi ngi xew ci dëkk bi ki nga xamante ni moom mooy Ali Aydar koy def xamante ni képp koo xamante ni jàpp na ci mbir moomu ñu daal ay daan yu metti kooku nga xamante ni nag écologiste la li mu yaakaar mooy Macky Sall gën a renforcer ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci àll bi ngir ñu mën a xeex la nga xamante ni mooy sàccu bant gi nga xamante ni moom moo lëmbee biir réew mi rawatina fi nga xamante ni mooy Casamance moom nag fi mu nekk nii dafa bëgg justice bi nga xamante ni mooy bu Sénégal ñu daal di jël ay daan yoo xamante ni buñ ko tegee képp koo xamante ni euh, teg nañ la li ni mel doo ñemeeti euh, def li nga xamante ni euh, moom mooy lii di sàcc bant te sax dina gën a yokk li nga xamante ni mooy kaaraange gi am ci àll bi ak bant yi nga xamante ni moom la ñuy sàcc di ko jaay ci dëkk bi douane bu Kaolack daa teg loxo lu bëri ci ay yamba yoo xamante ni daanaka daa nañ ko lakk lu toll ci juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay kilogramme yamba yoo xamante ni tegoon nañ ko loxo ñu xayma ko ci juróom-benn téeméeri million yu toftal téeméeri junni ak yeneen xeetu yamba yoo xamante ni daanaka teg nañ ko loxo loolu lépp nag ñoom daan nañ ko daal di jël lépp daal di koy lakk loolu lépp nag ak ay yoo xamante ni baaxul ñoom ñoo ko tegoon loxo fa nga xamante ni moom mooy ca Kaolack loolu lépp ñu koy lakk nag ngi daal di sàmmonte ak ak kaaraange waaye tamit bañ ñu sàccaat ko di ko dugal ci biir dëkk bi ñu jeexalee mbir mi ak li nga xamante ni moom mooy teer bi ak koor gi nga xamante ni lañ nekk ginnaaw bi nga xamante ne nit ñi daw nañ wutalikoo ngir mën a teel a àgg seen kër yi mu mel ne nag buuxlooyu ay vitre yoo xamante ne toj ko ca teer be ginnaaw démb nag di nga xamante ni moom mooy mbir moomu nag terewul nag ñi nga xamante ni ñooy sénégalais ñi ngi wéyal di dem fa nga xamante ni moom mooy boobile teer jërë ngeen jëf ci teewlu ngeen teewlu seen xew-xew yi nga xamante ni moo gën a fës ci biir réew mi leen jox di daje suba ak jàmm jàmm ci fii ci Rewmi officiel